ah mbokk trifiste yi bés bu rëy ñëwati na LONASE ànd ak welcome call et le CNG des courses hippiques dimanche 9 juillet foofu ca hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès ak journée du cheval doté du grand prix du chef de l'État waaw waaw mën ngeen parier si quatrième journée course locale yi dimanche 9 juillet teg si cagnotte bu toll ci 2 millions 417 mille francs CFA maa la ko wax 2 millions 417 mille francs CFA lan ngeen di xaar daw leen gaaw ci sunu ay points de vente ngir mën si bokk j'ai interdit au moins de 18 ans po mi nag ku amul fukki ak juróom-ñett mënu ci bokk.